ma lay jiin bismillaay ma dee ci door moom récupéré si Balla Gaye yëkki si moom récupéré si loolu loo jël si moom loo may wax yëkki ni laa ilaaha illallaah bi waaw loolu ah, bi bu wax jotee nga wax te li ngay wax kenn ko dindi àndax ñi nga war a àndal ba nga topp succès da nga topp succès déedéet musiba la succès bu bëri baaxul déedéet lu coow bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri mhm. trois jours quatre jours mu ko ne entraînement am dama dama woon sens misan maanaam mooy fi mu fi mu doon fi mu doon entraîné fa la doon ah, di jàng ba si mu bombardier waaw ba ci bombardier bu mujj bi ak moom boobu maa ngi jàng eh, eh. mu koy caxabal. c'était 2012 su ma yaakaar naa 2010. maa ngi jàng ak Fabrice Arouche bi mu préparé maa ñaa yëpp jotee là-bas du jàll. nga di leen di leen di leen jàng di di leen di leen bàyyi di ko bàyyi xel bu baax sa façon de faire du muy doxalee. doo dox mu bu dajeeg moom ci mbedd. day bëree coowal ni kur Dakar yëpp yaxee yaxee mu nekk ci rukom. toppul succès toppul dara. mbër day lalu. Balla Gaye de loo jël ci moom. Balla de hmm. gëm-gëm gi. waaw c'est très important mais nga fekk yéegi ni 15 ans daanuwul. booy ku ne di ut sama xarit la sama nijaay la. waaw moom la ma liggéey du ma dañuy bëri ah, abisif la ngare ree dasu ah, ko waaw kooku gëm-gëm la. gëm-gëm bi nga jël si moom. boo amul doo dem. la dëgër de lu jël si moom. la dëgër de nay gi. nay gi ci su ma la daanal doo ma daan. maanaam dafa nay ci biir bëri. waaw su ma do daanal doo ma daan malgré malgré man mënoo ma tee def mo bëgg a def daf may do ma daan. do ma daan mhm. bu re sa tët dafay la giri. la giri mom nante gi stratégie du combat. waaw. c'est fait intelligent. il est intelligent. Hein? sportif mo tam normal giri. Ah. am hygiène de vie bu baax a baax a baax a baax hmm. ah, avec les gens c' important. Hmm. Eumeu Sène de Pikine. non Eumeu Sène moom kooku moom macha allah kooku moom tactique tactique bi garaaw waaw et puis ak ni muy ma trop quoi mm-hmm. waaw borom baax ni ko baax la. ni ko baax la Eumeu Sène mm-hmm. waaw ni ko baax la. borom tax a sirib Tafa. yee kooku suma waay la di ko di bu baax. Tafa sa waay hmm? pare mu ñëw suma kër. waaw. ñëw na ba kër ga. ñëw na ba kër ga. wala lu ma neex dafa woo téléphone jaaral fii defal defal defal lii. di ko jàngal salaam mais ñun ay bool bool lañ. sam sa mbaa bool la. xam nga du ñu waa Pàkk Lambaay bu baax du ñu bool yëpp du ñu tam njaayteen di ko ñaanal kalaaf mu dugg yàlla ko ci jàmm salaam ak bool bool nekk bi naa yëpp suma doom day ñoom bourse yi nag xam nga gaayam daal vraiment. macha allah mm-hmm. dinaa la laajar keneen de Ama ak Boy Niang wala ma ne Ama non ama sañ-sañ boobu tamit sañ-sañ boobu c'est très important <laughs> ak Baye Fall ba xam nga damay dund ak gaayam bi nga xam ne trop vraiment waaw waaw Baye Fall boo foo ko fekk Pikine Kafoore ak gars yi xam nga mooy mm-hmm. man ñi ma wax ñëpp mosuma si amee kenn fréquentation mais dama leen gis ni may dund ñoom mm-hmm. waaw man dafa may neex trop parce man dama bëgg sax nit ñooñu quoi mm-hmm. làmb dafay jeex lépp day jeex mu euh, Boy Niang moom

am na solo euh, kan laa la bëggoon laaj léegi des na keneen de des na de des na de indi naa Boy Niang Ama ah indi naa Modou Lo indi naa Gris indi naa Eumeu Sène indi naa Tapha Tine ah indi naa Lac de hmm? yaakaar naa ne su ma juumalee ñoo ñoo waa Sa moom mooy loolu dafa laxale <laughs> dafa ma sonal moom ah, ah trop ah. moo dem champion su champion ni ku baax la tamit hmm. gars yi amuñu problème foo leen tayee da da ngeen xamante ay ay long time quoi vraiment vraiment xam saa moom golf ñaar sa maam mooy chef de quartier golf aussi yàgg ñoom ñëw sa maam gaañu na quoi mais ba ñu ñëw ñëw ñëw si njëkk moom la ñu njëkk dina gaaw dëkk leen pukus bi pour l'instant. <laughs> am na solo Sa Thiès ak lay dégg Balla lay dégg mais Bombardier nag waaw Bombardier moom ndeysaan moom gis naa keroog jël naa mu def ci yu rafet mais moom loo jël ci moom. eh bon bon dafa gis dafa bëri quoi vraiment parce que boo xoolee âge moo hmm. jee moom ak gars yi foofu de. waaw foofu te mosul suñu mën nga indi état benn bi jiitu. Hmm. te xam ne kuy bëreeg kuy bëreeg Modou Lo bëreeg Balla Gaye loolu leen leen di rek ay ci communication beeg ci lépp mais il est toujours serein. il est toujours serein. non mer nga mu mer ah, doo ko gis il est fort mentalement pare ak agent deux fois les arènes te bu waxee yow maam da nga dégg ba ki dem ba nga rëdd daan rek la wax bu ko neexoon daf fi xale mm-hmm. mais mun fa la waxuñu ni njëkk tàng tàng réaction à chaud. mbër yàgg na daanu ci tàng tàng wax wax bêtise. waaw waaw Salick. Salick wax bêtise après dem dëkk bi ko mën damaa juum. moom ci tàng tàng bi day wax waxuñu njaay ñëpp di ko dégg. kooku kooku macha allah ko ñaan jàmm di ko ñaan moom tamit mu jël avance bi rek. di ko ñaan ah? Ah, ah, mu jël avance bi waaw. am na solo mu mel ni kera nag fi may jeexal ak yow mooy Medina kera bi ngay bëri nee naa tey Serigne Ndiaye de est-ce que du moo war a sauver l'honneur bi bi nga daanee dama ne Serigne Ndiaye a sauver l'honneur parce que boo xoolee Diène Kaïré dafa ñëw ñàkk komba Bébé Diène ñàkk Mbagnick ñàkk yaa ngi dégg ñoo ñëpp du asumbe jun ngeen bokk benn gox bi kera nag yàlla dogal nga daan ah euh, ñooñu sa frère yooyu nga xam ne dañoo bëri teglante seen combat yi tegloo ñu ñàkk yëpp loo leen di wax tey. waaw ñu ànd xam nga làmb des fois day compliqué. ba doon comprendre tey Diène Kairé tey ku ko ne mooy sax ku ma doon nee ñàkk mbaaw du ma gëm. ndax Diène waaw aussi parce que Diène nu mu fonkee làmb nu mu fonkee entraînement macha allah yaru donc ñëpp cër. Euh, bébé Diène tamit waxi noppi mais suñu borom mooy maye. lu yëpp suñu borom la rek. ak bu amee xam nga tey champion du du daan da ngay daan daan daan daan loolu du champion. sama bopp da ngay daan daan daan après nekk say torof torof après reyante pour génn ci loolu. loolu mooy champion. il faut il faut du dara. am na jàll na nañ takkaat dal yi. jëlaat ci liggéey liggéey bokku ndey bokku bay ku ci am combat dafa la ci ndam lu ndam sedd guy. Mhm. bak si naa Mohamed. Euh, lol tamit nako laaj muy fas, Medina koloban gel tapé mais dañ gis ne ke jamono ji passé fofu digënté bi dafa xawa ñagas entre sax fas ak Medina lañ mëna wax yaay de buñ ñu Medina nak buñ ñu fas mom xel day dem ci ada fas ñu koy nuyu champion. waaye bu ñu limit naa tamit sa xel na dem si Gris Bordeaux dem si yow ñoom mbay gu gi tafaatin ak ñoom jéen kayre foofu noonu muy doxee jamono ji wala fan yële paas na mu doxee est-ce que noonu la war a doxee. ah non non war a doxee loolu ñëpp la métti tey ku ne ku ne métti la day wax lu la neex tey Fass ak maintenant benn terme la suñu diggante. waaw mu rafet mu xamul man na problème bi au fond xamul nu mu demee mooy da ngay yeew gis ay wax yu sew di gauche ak mais man damay ñaan daal ñu lépp teg suuf rek xam ne ñëpp ñëpp ñu ngi bokk objectif. mooy ndakaaru moo ñor point non Modou Fass bu mu bëri moom maintenant mu lekk coolee fi nekk rek ñu ngi waxi noppi mais nañ teg lépp si moo gën incha allah waaw wul per salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam